Malick Malick Dee bi la rek dee bi la rek yàgg Yàgg ba Balenciaga. Bayou Kër Mag Allah akbar Allahu akbar de

പത്താം കിലോ ആമജ ബെത്താം Mbacke Balla yàgg fee yaa rabbana bi xurmatil quraan wa bi rasuuli dayaan wa bi barakati xuruufil quraan wal axaadiisil qudsi wa bi xurmati xuruufil qasaa'idi